salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi soppe Sëñ Asan Salaam yeeg mbokki jullit ñu ngi leen di nuyu seen mbokk Adama Salaam topp mboorum Sëñ Asan Salaam ak jaar-jaaram ngir nit ñi gindeeku ci ragal xamoon jëmm ji di Sëñ Salaam yàlla def ci moom ngir mën a jariñ ci moom taasu seen i barke ak mboolem ku ñut yàlla rek tey ñu ngi fii ci Touba kër sëñ Modou Dia di soppe Sëñ Asan Salaam toog ak mbokk mu ñu wax sëñ Dame Sylla mu am ak jaar-jaar Seydina Alassane Salam tey jii di àjjuma le 7 juillet 2023 bisimilah. sëñ bi de maanaam am na ma moom ay jotaay ndakaaru mm-hmm. ay yoon yàlla dogal ba ma jógee ndakaar yi bi ma ñëwee fii mm-hmm. ñëw na fii ci corniche bi mm-hmm. Touba am na sareet yu bari yoo xam ne ku ci nekk wax na la danga ko gàntal mm-hmm. ñu ne ko am na sareet boobu day ki yor cere sëñ saaliw yi mm-hmm. su yàlla dogalee mu ñëw fi mm-hmm. ah yàlla mën naa dogal moom kooku moom buñ ko waxee du gàntu xam nga sëñ bi dafa nekkoon ko xaw a am yaram dégg nga léegi bi yàlla dogalee loolu dañoo wax ba daanee rek ma egsi bàyyi mat lii daal ne ah daam si la dee nga ne ma daal di ñëw bi ma ñëwee bi ma droitee rek léegi ci laa doog ci laa ko doog a joxe sama mbagg ma kobos bàyyi mat lii mu ñëw taxaw nii ci beneen côté bi mu jafandu ci sama mbagg jafandu ci mbaggum bàyyi mat lii yéeg ci saret bi waaw ma ànd ak moom ñu jëm si kër sëñ Modou Ablaye Fall Ndar bi ñu ñëwee ba ci buntu kër bi ma ne ah, fas wi de bu duggee mën na fee def dara fekk sëñ baa ngi teg lalu campagne bi soonu mu firta suma na ma dugal sëñ sëñ na ma dugal ci biir sëñ Asan ci boppam na ma dugal ci biir léegi ma daal di dugg bu ma duggee dama dugg ba kii ba jub sëñ bi daal di droite nii ci ci wetu lal bi waaw mm-hmm. sëñ bi bi mu ne bërët xool saret bi mm-hmm. def na bërët rek daw songu saret bi mm-hmm. sëñ Modou Ablaye Fall Ndar bi mu songee saret bi da daa di ko daal jox mbagg mi ma mayit ma daal jox ko meneen mbagg mi mu jàpp ci mu ñëw daal toog wàcc ci saret bi toog mm-hmm. daal di na ko nii mm-hmm. mën naa ko def fukki fan mm-hmm. toog nee na tëdd bi yóbbu ma ko dadaa toog daal na sëñ Moodu Ablaay mu ne ko Mbàkke mu ne ko kii ñaanalal ma ko nii sëñ Mourou Abdoulaye Fall bi ma ñaanalee ba noppi sëñ bi wàññikuwaat ñaanal ma moom ci boppam ma jóg ba génn ak saret bi sëñ Mourou Abdoulaye Fall daw dabaat ma daal di may téye na ma andil nga ma lu rëy tey waaye nag bàyyee naa la maam Cheikh Ibrahima Fall ma doog a départ dem si am nañu ñoo xam ne ñëw nañ ci man na ma dama bëgg ñu nga yóbbu ñu ci sëñ Asan ma ne leen bisimilah bi ñu àndee bay jub kër gi ñu ragal ñu ne daal ñoom ñemewuñoo egg ragal waaw ndax sëñ bi moom lim lay wax moom day ma daal man ma daal dugg siyaare ko ba nopp mu ne ma am na ñett ñoo àndal wax leen ñu egsi ñu egsi Moustapha ko njëkk a jox loxo mu ne ko demal nga tuubali say waajur waaw ba doo baax le fii doo baax la fa nga jëm waaw sama xarit boobu hmm. moo ñu xamale woon hmm. waaw moo ñu xamale woon hmm. bam ñu xamale ma ñëw toog mu toog mu ne ko kii sama xarita mu ne ko am nga xarit bu baax lim sama juróom-ñaari maam sama juróom-ñaari maam la ko limal na ko sa xarit bi fonk ko bàyyeetuma faa dem nag mm-hmm. waxtu woo xam ne dégg naa ab yëngoom mm-hmm. lu may lu ma jàpp rek danaa ko bàyyi dem siyaare ji ko doog a dem doxi lu may doxi mm-hmm. waaw ci ndakaaru moom wax dëgg yàlla ni nu sëñ bi ni moom ni nu saa borom boolee sax day wax dëgg yàlla yéeme na de ndax man bi ma jógee Dakar mm. jàppoon naa ne du ko gaaw a gis xam naa daal gis naa moom ñu bari ci jotaay yu may jotaay mhm. ñëwee da am na ci ñoom da leen di fettal du ñu egsi yoo xam ne man fekk naa ko mhm. du ñu egsi nii lay def xam naa nag looloo taxan nit ñu bari ragal ko loolu daal moom xam naa ko ci moom baax a baax. léegi ginnaaw bi jox la cere. Um, sëñ jox ma cere yi. sëñ Saliou Mbacke. Hmm. cere yi yor naa ko juróom-ñetti at ak juróom-benn weer. cere yi daara yi man maa ko daan togg. juróom-ñetti booli togg bët bu set. Hmm. akum ñeexam. Hmm. ma yor ko juróom-ñetti at ak juróom-benn weer. saret boobu suñu saret joxoon na suñ suñ ko jëlee moom yóbbu ko. ci laa ca saret boobee nag ca laa ko jëlee yóbbu ko kër sëñ Modou Ablaye Fall Ndar. bu fekkee ne gaa ñu baax ñu ñëpp dañ ko nekkoon ba jóge fii te defaluñu leen lii nu leen defal ni nu leen fonk fonk wuñu ko taxawuñu ci matal seen ak seen barke ci ñoom dong lay yem waaye du agsi ci nun ñoom ñoo jëfee woon li xokkamaa yi wax ne amal li dunyaa ka annaka laa tamuutu abadan wa amal li axirata ka annaka tamuutu xadan ndax li ñu jëfoon bu fekkonte ne dafay yemoon ci ñoom képp ba léegi duñ taxaw di ko waxtaane di ko sulli ngir nit ñi di xam la ñu jëfoon di yoon wu ñu tàllal woo xam ne nit ñi dañ cee war a jaar ngir texe ëllëg kon bu fekkee ne seet nañu ne ñooñu dañu noo liggéey liggéey bu rëy nu bañ a seet kenn fu fees lu dul ñëpp bokk bëggandoo ñëpp bokk wormaal ñëpp bokk sàmm ñëpp nu bokk ndey bokk baay yëpp li nga xam ne moom lañu alquran wax ak li yonent bi wax sallallahu alayhi wa sallam ne almuslimuna tatakaafau dimaahum wa yasaa bi zimmatihim adnaahum wa hum yadun ala man siwaahum ñi gëm ñëpp seen deret benn la ki gën a suufe ci way gëm ñi bu fasanteeg nit wëllëre wëllëre woowee war na jullit ñëpp jullit ñëpp benn loxo lañu tiim képp koo xam ne dal nga si kaw kenn ci ñoom di seet nag masuliya maanaam responsabilité sunu mag ñu baax ñi nga xam ne ñoom la sulli seen i jaloore seen masuliya di lu mag ndax dañu ne ida zalla al aalimu zalla bi zillatihi al aalamu koo xam ne benn njuumte boo def mbooloo mu jeex topp sa njuumte loolee jàppe ko dëgg te duñ ko fas yéene bàyyi mukk te loolu lépp yow yaa koy gàddu sa responsabilité rey na